الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala di seede na moom dong mooy yoo ñu koy jaamu di seede na yonentam ba muhammad salallahu alayhi wa sallam mooy jaamam ba mu yónni woon ñu war a roy ci moom ak jaamu yàlla di leen dénk ngeen ragal yàlla ca sax ci loolu ba baa dee di leen ci fekk amma mbokk fan yi nga xam ne moom la ñuy dund nekk na fan yu tedd la nga xam ne moom mooy makka doomu aadama yaa ngi jógee penku ak sowu ci gox yu sori dem di daje ji te néegu borom ba màgg boobee la nga xam ne nii mooy seeni alal ñu bàyyi ko gannaaw seeni njaboot seeni dëkk ngir wuy ji la nga xam ne mooy woote borom ba subhanahu wa taala lay jolli seen lammiñ ya mooy laa ilaha illallah ju bari ja kabbar ga ñuy kabbaral suñu borom doon ñoo xam ne nii la ñuy woote di ko feeñal mooy ay yàlla ñi ngi lay wuy si ca yàlla ñi ngi sax di la wuy si ay labbayk allahuma labbayk te mooy yàlla wuy si nañ la ci at ji waaye gannaaw at it lépp loo xam ne digal nañu ko daañ ca wuy si yàlla amoo kenn kuñ lay bokkaaleel mboolem xéewal ci yow lay jóge mboolem nguur ci sa loxo la nekk amoo kenn koo xam ne nii moom lañ lay bokkaaleel ñi ngi noonu di wuy si la nga xam ne nii xaritu yàlla ba woote woon na ko di ibrahima alayhi salaam bi suñu borom ne woon wa azzin fi nnaasi bil hajj woowal nit ñi ñu ñëw wuy si la ci aj makka la nga xam ne mooy mbégte ga ma nga nekk seen xol ñu jëm ca néegu borom ba subhanahu wa taala ngir yaakaar yàlla baal leen seeni bakkaar ngir yaakaar yàlla fay leen ajjana mii jooxa ji la nga xam ne mooy juróomeelu ponk ci diine lislaam benn julit amul droit réere ko suñu borom nee na néeg bi ma jëkk a taxawal mu nekk jàkk ju jëkk ci kaw suuf mooy ba nekk ca makka suñu borom def ko njub ñeel mboole bi mbindaa fan yi mu ne mandarga ibrahima yi ma nga fa woon fam taxawoon di tabax kaaba gi suñu borom yàlla ne wareef la ci doomu aadama yi ñu xam ne war nañoo aje ji makka képp koo xam ne am na kàttan ci loolu loolu nag mbokk julit jamono ji nga xam ne yàlla tànn na ci ñun ay lu jege ay douze mille sénégalais yoo xam ne ñi nga war a dem waaj ngal la waay nañu xam ne am na ab yóbbal bu ñu war a yóbbaloo yóbbal boobu mooy heure bu doon ne yow yàlla boole na la ci loolu ngal la waay nga sant sa borom subhanahu wa taala te xam ne bu doon ne ne dañ ne Sénégal junniy nit ñëpp nañ ut kenn ku leen représenté sax matu ko bu dee population bi mat ne treize millions lay aji matul treize mille kon jàpp jàppal rek ne junniy nit ñu nekk yow la ci yàlla tànn ngir nga mën a dem aji ji loolu di xiiwal bu rëy boo xamee ni nii doomu aadama yu bari ñee nañ la ci loolu aka bari ñoo xam ne tey su ñu amoon pexe dëgg doo leen fi bàyyi de waaye yàlla dogal na seen am-am demewul noonu aka bari ñoo xam ne nii tey am nañu waaye yàlla natt na leen feebaru yaram ba mënuñoo jóg dem di aji ji aka bari ñoo xam ne sax yàlla ngi leen nattu ñu nga tudd ca koso ya loolu kon nga la way santal sa borom ci bim la booleelee may la liberté may la am am may la kattan nga la way santal yàlla ci loolu nan ngay sant yàlla ci loolu li jiitu mooy nga la booy dem yóbbuwalul ragalul yàlla suñ borom mu ne yóbbalu leen la gën ci li ngeen di yóbbaloo mooy ragal yàlla lan mooy baasu ragal yàlla baasu ragal yàlla mooy nga sellal sa yéene ci yàlla tax suñu borom nee na sama jaam sant ma leen lu dul ñu jaamu ma te sellal la nga xam ne moom mooy seen diine ci loolu mbokk jaamu yàlla gi lu mu rafet rafet lu mu dëppoo dëppoo ak sunna su dee ne yàlla taxul loole yàlla soxlaatu ko kon nga la way at gi ngay at moytul bu ci xool leneen lu dul ngërëmal yàlla subhanahu wa taala bàyyil xel ki nga xam ne mooy suñu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam keroog ba muy aji ji nee nañ benn waruwaay wu yemoo la war teggam te tegoon teg bu yemoo la yoo xam ne la doon dërëm ci seen jamono yu joojee dañ ñi matul sax ñeenti dërëm yeneen ci bi taxaw ca kaw gileemam nga daa ji ne ay yàlla ñoo ngi ñëw ak si de ak yoo xam ne ndigtal amu ci ngistal amu ci nga la way yow julit bàyyi xel loolu bul dem mukk di aji waaye jàpp ne nit ñëpp nit ñëpp war nañoo xam ne man kat ren damay aji nga la way bu ci jublu la nga xam ne mooy ngistal kii nga xam ne mooy Sufyan ibnu Uyayna nee na man day mas naa ànd ak ki nga xam ne mooy Ali ibnu Hasan ibnu Ali nga xam ne sët la ci Ali ibn Abi Talib di sët ci Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na bi mu taxawee ci kaw gileemam ñu gis ko mi ngi mel ne koo xam ne dafay lox der bi daal di changé ñu ne ko waaw doo wax labbayk allahuma labbayk mu ne ah ragal naa yëkkati labbayka ñu ne ma yow day laa labbayka wala saadayka kenn nangulu la ndax lan mooy waral loolu mbokk julit bépp at boo xam ne yàlla taxul bépp at boo xam ne alal ji dafa xaraam heure boo taxawee ne yàlla labbayka maa ngi ñëw malaaka yi ne la yow foo jëm yow kenn nangulu la kenn wuyuwu la yàlla na yàlla musal ñu ci loolu suñu borom yàlla subhanahu wa taala tagg ay jaamam jaamam yooyu nga xam ne nee na walladina yu'tuna ma ataw ma ataw wa qulubuhum wajila jaam yu baax yi dëgg-dëgg ñoom ñooy jooxe la yàlla santaane waaye ànd ci ak tiit mbaa man li may def sell na mbaa li may def yàlla nangu na ko suñu borom yàlla nee na ñii de ñooy jëkkante ci aw yiw te ñoom ñoo ca jiitu ngal la waay mbokk jurit xamal ne sa julli yi sa koor yi sa at màkk gi sa dund gi lépp da nga koo war a jagleel sa borom xamal ne fi nga jóge jëm ci sa borom seytaane mi ngi ngemb ngir jël wàllam lan mooy wàllu seytaane ci say jëf mooy mu fexe ba roofal la ci la nga xamee ni nii moom mooy ngistal ngistal boobee da ngay gis ne seytaane du ci xeeb dara su ko defee sa jëf lam gën a selle te ngay gën a amee sa ngërëmal borom naka ngistal di duggee ca nga cay séddee la nga xam ne mooy seytaan ay yow mbokk bi jóg di aji gannaaw ba nga yóbbaloo ragal yàlla xoolal kan ngay ànd ak ci say aji soo amee nit ku baax koo xamanteel baax na soo ko amul soo demee ba aéroport wala nga yëg makka xoolal doomu aadama yi kan ca jàpp ne kii kat moom gis naa ci moom mandarga ju rafet ci doxalinam ci waxinam nga ànd ak moom ndax doomu aadama mun nga ñàkk ku muy àndal julit day dëgëralante ak mbokk julitam te it nga xam ne tooga ko baax ak tooga ko bon yonent bi alayhi salaam nee na ñu ngi mel ne nga toog ak kuy jaay parfum ak toog ak koo xam ne day taal ay taalam su ko defee ànd ak bu baax loolee nit ki da ko war a sakku ca la nga xamee ne mooy at ñaanal yàlla jëppale la ay yàlla ña ma nar a booleel ñu nar a bokk nekk ña ma nar a booleel ñu nar a doon ñu ànd yàlla na nga leen def ñuy jaam yu baax jaam yu ragal yàlla gannaaw loolu mbokk jëlit na nga génn ci aqi doomu aadama yi li waraloon tàggoo makka mbokk julit du ne woon dem ci nit ñi di dajale ay xaalis waaye la waraloon tàggoo makka mooy yaa ngi dëkk ak nit ñi ci dëkk bi tey jii yaa ngi jóg di nar a dem dem boo xam ne yàlla xam ndax da nga dellu seen déet mën na am ñoo xam ne ay aq doxoon na seen diggante aq xaalis aq wax ju ñaaw aq loo xam ne waral nga ko koo jooxa ci jooxe woo ko ñoom ñëpp nga wër leen balu leen aq ñu bal la aq ba nga xamee ne sa xol dana set bala ngay dem amoo kenn koo amal noonu ci dëkk bi amul kenn koo amal àq ci dëkk bi léegi nag nga doog a jublu ci sa borom ngir la dox sa digganteeg sa borom yàlla subhanahu wa taala yombalal la ko bàllo ngan la way bokk julit nit la ko junñe sànq mooy fexeel ba góorgóorlu ak googu nga jëm yóbboolul la nga xam ne lu dagan la del lekk loo xam ne lu dagan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne bépp yaram boo xam ne lu xaram lay lekk safara moo ca gën a yey yaa ngi jëm ci sax di ñaan ñaan yooyu biir ba muy jóge bu dee lu xaraam ba fa nekk yàlla du ko nangu naka way góorgóorlu sa kemtalal kattan ci ah at googu nga baril di jéggulu sa borom ngir yàlla subhanahu wa taala musul la gannaaw loolu mbokk julit moytul lépp loo xam ne nii dafa xaraam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na la nga xam ne mooy xajjul mabruur amul benn pay lu dul aljanna képp ko aj màkka fekk ne defoo benn bakkaar waxoo benn bakkaar sooy nit si da ngay mel ne keroog nga judd loolu nag la la cay musal mbokk julit mooy nga xam ne sa dund gi day yàggoon na tey nag yaa ngi ci benn étape boo xam ne à peine un mois lay duré te mën na am dootoo ko dundati ci sa dund nga la way un mois yooyu màggal ko fexeel ragal yàlla jëfandikoo la yonent bi waxoon mu onze te mooy ittaqillaha haysuma kunt mooy foo toll ci sa aj doonal ko ragal yàlla heure boo yégee na tarxis nga gaawal tuub dellu ci yàlla ca ña ngay jëflanteel ñépp nga jëflanteeg ñoom ci yiw moytul dagg sante moytul werante moytul la nga xam ne muy xëccoo ci at googe gannaaw ba ngallawaay bokk julit góorgóorlu la sa làmmiñ fu mu mën a toll del def zikrullah del ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp loo xam ne nii dafay dox sa diggante ak yàlla sori ko portable ya nga xam ne ak la ca nekk ca lañ koy mën a seetaan ak yeneen ak yeneen yooyu yépp ngallawaay sori ko ngir temps bu cher boobee ngay dund nga xam ne nii ñu ëpp ci yéen musuñu koo dund ca mën na am dootuñu ko dundati ba baa ñu daje ak seen borom ngal la way nañu góorgóorlu moytu lépp loo xam ne nii day doon luy lor doomu aadama yi xamal ne yow mi ñëw kat ganuk yàlla nga waaye ñu ngi fay dajeel ñuy ay chinois ay ay yeneen lu mën a doon ci lakk yi xamal na ñoom it ganu yàlla lañu ngan la waay ganug yàlla lor ko musiba la te xel ba bul lor mukk la nga xam ne mooy ganug yàlla subhanahu wa taala te ña nga xam ne ñoom nga nar a dajal foofu góor góor lu doon kuy am njëriñ yeneen ci bàyyi islam ne ne ki gën ci nit ñi mooy ki ëpp ci ñoom njëriñ ngan la waay bul nay loo mën ci dépense jox nit ñi defal koo mën a jàppale jàppaleen gannaaw ba xamal ne yaa ngi ci place boo xam ne yonent bi alayhi salaam nee ne benn julli boo julli ca masjidul haram dana nekk téeméeri junni julli ci boo julli feneen nga la waay góorgóorlul sa waxtu julli yépp nga di ko def foofee nga xam ne moom mooy masjidul haram mbokk julit ñi nga xam ne dañoo aj makka suñu borom yàlla subhanahu wa taala def na leen ñu ay ganam heure buñ ko ñaanee mu may leen loolee kon nañ góorgóorlu di baril ñaanal seen bopp di baril di ñaanal la nga xam ne seen mbokku julit donte ne ñaanuk alaxira moo gën ñaanuk àdduna naam ñaanal yàlla jéggal la jéggal say waajur jéggal julit ñi ñaanal yàlla defaleen àjjana muy seen wàccuwaay gannaaw bi it lépp loo xam ne nii xam nga ko ci loo xam ne nii ñaan la muy jëriñ ci àdduna it loolee da ngay gis ne dara nekkul nga ñaan ko ngan la way mbokku julit nañu moytu ci aj màkk googee nga xam ne ay millions ñoo fay daje loolu nag ku nekk ci ñun war ngaa bàyyi xel jéem a moytu di salteel place ya ngay nekk loolee nga xam ne ab douche la ay mbooloo ñoo ko bokk ngan la way boo duggee douche ba ba pare xalaatal ñen ñuy dugg sa gannaaw na nga ko defar ba mu set lépp loo xam ne da nga koy sànni ngan la way xoolal foo koy sànni moytul di tilimal dëkkuwaay ya moytul di tilimal la nga xam ne mooy tali ya donte ni réewum arabie saoudite yal na yàlla fay leen coono bi ñuy dat ngir setal ah place yu sedd yooyee kenn mënu la koo nettali ay équipe yoo xam ne nii kenn xamul seeni lim waaye nga laayu effort boobu ñuy def bul bokk yow abadan ci ñi nga xamee ne nii dañuy dem di en silimal la nga xam ne moom mooy place bu tedd boobee ngal la waay mbokk julit nañu góorgóorlu waat jéem a ku yàlla wërsëgal nga dem la nga xamee ne nii moom mooy màkk boogee nga xam ne day ñëw fay nar a dajeel say mbokk julit lañu yàlla nee na ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ba fa dajeeg nit mag ko di ko xeeb ngiree melokaan ba mu mel bu ko xeeb ngir la nga xamee ni nii moom mooy jëflante ba muy def bal koo jàpp rek jàppal ne ah fii kat xëy na moom a gën loolu day dee tax képp koo xam ne dafa wàcce boppam fokk yàlla subhanahu wa taala dana la doon koo xam ne ku lay yëkkati la nga la way bu la yàlla wërsëgalee ba nga acc na nga dogo foofu ñaan yàlla ay yàlla day maa ngi nibbi lépp loo xamee ne nii maa ngi teewoon ci njunte yàlla fas yéene naa dootuma ci dellu ba baa may dajeeg suñu borom te bu njëkk loolu lañ daan xàmmee ajaa yi ak elhaaj yi lañ daan xàmmee ku jóge makka mooy koo xam ne kenn du ko gisati ci ay caaxaan kenn du ko déggati muy waxi caaxaan foo ko gis dañ koy gis kii ku jege yàlla la sun mag ne lii lañ daan xàmmee elhaaj yi diw ak ajaratu diw amma suñu jamono yi tey li ci xew yéen ñëpp yéen a ko gën a xam waaye nga la waay yow mi yàlla wërsëgal te xel ba boo demee màkk nga def engagement sa digganteeg sa borom yàlla mi la may occasion bi nga xam ne ñëw nga fii nga la waay nga góorgóorlu ba lépp lu doon bàkkaar nga daal di koy tóob mbokk li may wax ak yéen ñëpp mi ngi aju ci ña nga xam ne dañuy aji dañuy dem aji ji na am la ëpp ci yéen bokkuñu ci loolu waaye nag mbokk julit li tax ñuy fàttali ak màkka di fàttali comportement ba ñu far a nekk mbokk ñaar mooy aji kii dafa dem ànd ak jëmmam ak xolam kii yàlla dogal moom xolam de jëmmam demul waaye xolam mooy dem looloo tax heure bu aj màkk gi tàggoo tàggoo aj màkk jotee bépp julit boo xamee ni nii yow demoo màkka wala sax mas ngaa dem màkka sa xol fokk mu jublu ci màkka jooje waaye ngal la way bégal ngal la way bu dee ne ñi lay tàggu ñi ngi dem seen waa néegu borom ci seen jëmm xamal na yow man ngaa dem ca borom néeg ba ci sa xol ngal la way sa xol bi delloo ko ci yàlla heure boo xamee ni nii sa borom yàlla yëg na ci yow ne yow kat lii mu santaane lenn dong nga tax bëggoo ca mooy ngante loo xam ne ni moo la ko teg ngan la way bégal amul lenn loo xamee ni nii ñu aji makka dañ ko am ci tuyaaba lu dul yàlla defal la ko comme na ko yeneen ci bi alayhi salaam bégaloon jërit ne demul woon ci xare tabuk di xare bi mujj xare xare bu metti loolu coono bu la ñu daj ko fa bañ demee bay nibbi si mu ne moo ni day am na ñu nekk ca madina amul benn coono bu leen dal amul benn tuyaaba bu ngeen am lu dul yéena ca yem képp sahaaba yi na ko ah yu mu yàlla yu ne ca ñoom ñu ngi madina mu ne waaw waaw ñu ngi madina ndax lan moo tax mooy ngant moo tax ba ñoom demuñu kon nga la way bigal waaye nag utal programme ci sa dund yow nga nekk góor wala jigéen utal programme aj makka ci sa dund waajal ko utal benn kees boo xamee ni nii da nga cay yéene ne lii day danaa ko jagleel la nga xam ne mooy aj màkk ana lu bari ci ay intellectuel tey ñu ngi dem di jindi ay oto ay cinq millions ay nangam nangam ca la ëpp ci ñoom sax oto ba du farata ci ñoom loolu yi la gënoon a yooyu mooy nga dem aji màkk soo demee màkk nga ñaan yàlla may la oto wallahi maa ngi lay garantir yàlla dina la may oto maadaama bàyyi woon nga oto bi ci yàlla tax loolu la ñuy jox ci misaal yu bari ak bari suñuy jigéen ñi nga xam ne benn xew rek mën nañoo dem làng yàq fa millions yu dul jeex ndax programme nga suur dem la nga xamee ne nii mooy sa néegu borom natt yu bëri yi ngay dugg ndax sóoraale nga ci dem sa néegu borom wallahi boo dëggoo ci sa borom yàlla dëggu ci yow. da ngay gis mbokk yi ñu ngi nettali fële ci Kaaba ga am na benn imam al-Arifi muy nettali nee na benn jigéen bu jóge woon Indonésie bu mag dafa ñëw ba ci Kaaba gi. bi mu gisee kaaba gi mu daal di sujud sujud bi yàgg yàgg yàgg ñu ñëw yëkkati ko nekkate faatu na radiyallahu anha nee na ñu laaj ñi mu àndaloon ñu ne soxna sii day keesam la daa doon di dajale ak màkka fanweeri at ci gannaaw fanweeri at lu mu am dugal ca kees ga ba ren lay doog a matal ñëw makka bi mu ñëwee ba gis kaaba ak borom bi kontaan ba mu am ba mu sujjuutee ca la crise cardiaque wala tension wala lu yàlla xam foofu la yàlla jëlee ak ruuxam loolee kon mbokk dañ koo war a waajal te it lii ñu leen wax gis nañ ci loo xam ne ay exemple la ñoo xam ne bu doon xëy rek làmb seen poos génne dem màkk amuñu ko waaye dañ koo waajal ay ati ati at ba yàlla subhanahu wa taala yombal ko ci ñoom loolu moo tax ba nga la waay mbokk julit te la nga xam ne muy mujj gi mooy mboolem ñi nga xam ni ñi ngi jóg di dem màkka xam leen ne ñun lañu fa teewal ñun ñëpp ay julit ndax man ngaa imaginer ak loo xam ne kenn du aj màkka na am dana mas a am bala addunaa tukki waaye ñun yàlla bu ñu fi fekk bala addunaa tukki daan dem ba kenn dootul julli kenn dootul woor kenn dootul dem makka na am waaye kon heure bu ñu demee dégg na ay millions dem nañu kon jullit ñépp lañ fa teewal ñaan yi ñuy ñaan jullit ñépp lañ ko ñaanal loolee ko nit yéen na ngeen leen di ñaanal yéen tamit fu ngeen mën a toll ñooñee jëm ci néegub yàlla ba ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla wërsëg leen yóbbal bu yàlla nangu yal na yàlla yombal leen seen aj makka yal na yàlla wërsëg leen ñu jooxe ko na ko yàlla bëggee yal na yàlla wuutu leen ci njaboot yi ñu bàyyi ci gannaaw yal na yàlla wërsëg leen ñu dellu si ci jàmm ci aj goo xam ne nii day ànd ak bakkaar yu ñu sippi ak àjjana joo xam ne yàlla subhanahu wa taala da leen ko garantir mbooram ña nga xam ne ñun ñi nga xam ne ànd ñëw ñoom ci aj googee yal na yàlla sellal suñuy xol yal na yàlla jël suñu xol bee aj ko cay borom bi nga xam ne mooy borom néegu makka ba gannaaw ba it yal nañu yàlla wërsëgal ba ñuy bala ñuy faatu ñun ñëpp ñu dem jooxa ji farate aj googee innahu ala kulli shayin qadir allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fi l axirati hasana wa qina azab annar xam naa bala may fàtte it ñi ngi fàtte di jigéen ñi ni daar yi jigéen ji nekk ci jàkka ji altine bii di ñëw lañ koy ubbiwaat yal na yàlla subhanahu wa taala def ci barke allahuma rabbana habib ilayna aliman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna alkufra walfusuq walisyan waj'alna birahmatika min arrashidin اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين